di ñaan suñ boroom mu defal ñu xéewalu njub te saxal ñu ci yoonu njub jégal ñu sunuy bàkkaar te li yu yu néew yi nga xam ni ñu ngi koy jéem ci lu baax suñ boroom ful ko def ko muy lu baax ginnaaw loolu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sëlmal ci moom di bëgg waxtaane lenn ci yi nga xam ni dafay yu doomu aadama dul teg bëtam te mu war a bokk ci yi muy gëm ndax jeexital yi muy am ci doomu aadama yàlla nag dafa tagg gaa ñi nga xam ne ñoo gëm wax ni ñi gëm dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy ñi am yi yiy nëbbutu te doomu aadama mënu koo gis mu bokk ci ñuy boole ci seeni pas-pas yàlla des koy gëm des ko gis leneen ak leneen ak leneen li baree baree bare yowmal xiyaama ngi ñëw te war nga koo jàpp war nga koo gëm am na bis boo xam ne li nga defoon lépp des na ku gaaral si sa kanam loolu bañ ko dalee wax ak léegi ay junni junni at la te ba léegi kenn tegu ko ci bëtam waaye jullit bi war na koo gëm kon loolu mooy al imaanu bil gayb waaye nag loolu bokk na ca yoo xam ni dafay jeexital ci sunu dundu tey ak ëllëg ñu jël ci ñaar bëgg waxtaane benn bi tey bu njëkk bi mooy li ñuy wax bët ak jeexital yi mu mën a def ci doomu bët nag jeexital yi muy def ci doomu aadama yu wér la ndax alxuraan saxal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxal na ko ci ay barab yu baree bare seydina yanqub yonent la woon boo xam ni ci yonent yi yàlla defaloon tawféexi ci ak càllalaam ñu baree bari jokk ci nekk ay yonent loolu bokkoon na ci xéew li nga xam moom la suñu borom defal eh, seydina yanqub moo doon waajuru seydina yusuf alayhim assalaam bi mu xisab yusuf bi njaboot gi daje ba war a dem ci dëkk ba nga xam ni fa la Seydina Yuusufa nekk dafa bokk ci la leen digal mooy bu ngeen demee bu leen àndandoo yéen ñëpp ngeen duggandoo ci benn bu benn bunt waaye na ngeen tasaaroo ñiy dugg ci bii baar ñiy dugg ci bii bor bale boor loolu nag boroom xam-xam yi wax nañ ni ndax aaya ba mu ngi jeexe ci su borom day wax ni moom de la ma ko xamaloon xam na ko ba mu wér lu leer a leer la ci boppam boroom xam-xam yi wax nañ ni bokk na ci li tax Seydina Yaaquba digaloon ak njabootam ñu bañ a bokkandoo benn bunt bu ñuy jaar mooy cat ak bët bi nga xam ne mën naa tegu ci seen kaw ndax yàlla defaloon na leen ñu am kàttan am xam-xam seen melokaan nit ñi soxla ko bëgg ko alxuraan jàng ngeen wa min charri xaasidin kon yooyu di yoo xam ni yu yu alxuraan wéral la ci dundu jullit bi mu war koo jàpp yonent bi sallallahu alayhi ci wax lu gën a leer dafa wax ni bët dee dëgg la su fekkoon ni am na lu sañ a jiitu dogalub yàlla ci nit ñu wax ni bët lay doon loolu wax yonent bi la sallallahu alayhi la ca topp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni bët de ak cat la cay juddoo moom la doomaa moom lay wolof yi di wax cat nee na la cay juddoo mën naa yóbbu góor yàlla ca bàmmeel waaye it noonu muy defe góor yàlla yëmul ci doomu aadama rek waaye dafa egg sax ba ci mala yi ndax mooy fekk giléem bu taxaw mu ñu set mu seppi ko ci biir giléem yi dugal ko ci biir cin te moroom yi di dund kon noonu muy def gileem noonu lay def doomu noonu lay def alalam noonu lay def leneen ak leneen ak leneen nettali nañ ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn saxaaba bu ñu doon wax Sahal ibn Hanif dafa yàlla daf ko defoon muy nit ku am ab taar waaye yaram wi weexaay bi e, dafa jéggi woon ab dayo ci ñi nga xam ne ñoom la nekkal bis ñu ànd mook yonent bi sallallahu alayhi wa ak mbooloo waxtu xëy na waaj jot mu summeeku di di di sangu am ku ca teg bëtam wax ca wax ju yéeme ba mu ko waxee yàggu dara dara dara waaje daanu feebar ñi ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko diw sàngam di daa feebar bu mënta ju mu ne xanaa dañoo wax ci moom ay wax ñu ne ah kay diwa ko wax mu wow kooku wax ak moom yedd ko ni ko nag yenn nii ko def am lu mu ko digal ni ko na ko def la mu ko loola mu ko digal ba mu ko defee sang ko waaj ca saase la daal di jug bokkat ci mbooloo kon loolu muy tekki rek mooy bëtub doomu aadama dafay tal ci nit loolu lu wér la loolu nag tekkiwul ni dogalub yàlla bi am na dara lu ko mën a fanq waaye loolu dafa bokk ci coobare yi suñ borom yi coobare yi suñ borom yi bokk na ci mu am yu mu mën a jëf la ni mu ni seytaane mel ci doomu nga xam ne seytaane mën na dox sa diggante ak jaamu yàlla mën naa dox sa diggante ak yu baree bari noonu la yii mel te seytaane moomu ak lu mu bari bari doole suñu borom a ko bind kon jullit bi dafa war a jàpp loolu xam ni lu am la te lu mën a jeexital ci dundam la lan mooy tax mu mën a jeexital ci dundu doomu aadama ci coobare yàlla bi ci njëkk mooy càggante càggante nag ba ci ëpp doole mooy fàtte ni li nga yor suñ boroom a la ko jox ak nu mu mën di mel ak nu mu mën di toll suñ boroom dafa wax ni bi ñu demee ba fàtte seen boroom ak xéewalim leen jox nee na dama ubbi bunti asamaan ak bunti suuf luy xéewal ma teg ko ci seeni loxo ba mu bari lool béw gi dal leen ba yaatu nee na waaye fu ma mujjeeg ñoom mooy dama ñëw ak sama dogal bëggatatan muy dama leen a bett lañ yoroon lépp mën a kon bu la yàlla joxee nga dem ba jàpp ni li nga yor ci say pexe nga ko ame walla ci sa doole nga ko ame dugal nga buntu bët mën koo yàq dugal nga buntu ku iñaan mën koo yàq kon sàggante sa diggante ak sa boroom sàggante ci fàtte ni li nga yor sa boroom la ko jox loolu bokk na ci li nga xam ni dafay dox dafay may buntu bët mu mën a jeexital ci li nga am ñaareel ba mooy li nga yor nga génnee ko ci bëtu nit ñi ngir wane ko wane sa bopp wane sa daraja boobu nag mooy feebaru jamono bi ñu toll nii suñ boroom dafa wax ni am na waajoo xam ni ci alal kenn dabagu ko ci bari lépp muy xaaroon nee na bi muy nettali xistaam dafa wax ni bis waa ji dafa génn la mu gënoon a am ci lu rafet mu sol ko di jaagar jaagari bi mu génnee ñi nga xam ne seeni xol dafa woyof kenn ku nekk commencé koo ñëwee nan ay waa ji la xoolal waa ji li mu yor ay lu ma doon ay lu ma mën a def ba mën a am lii lii de su ma amoon xéewal man koo am maanaam kenn ku nekk di ko yéem a ko kii ñi nga xam ni yàlla defal na leen tawféex ni leen te ngeen dellu ci suñu borom ndax moom rek mooy joxe waaye fa mujjeek moom mooy fa xasaf naa bihi maanaam lam yoroon kër yaag alal jaag lépp la suñu borom wëlbati ci kaw kon wanewu ak wane li nga am dafa bokk te ngir bëgg a ci kaw nit ñi bokk na ci yi nga xam ni bu amee dafay indi euh, bëtub doomu adama ak ay wa ca nekk mën a dal ci say say mbir ba yàq ko yàqin woo xam ni lu ne mën na caa dal kon ñaar a ngi nii kii solub mbasin kee solu mbasin kii mbugal mën ko caa dal kële fayu yàlla mën ko caa dal xam nga fu ñuy wute ñoom ñaar kii dafa sol mbasin ngir sant yàlla ndax yàlla da koo jox xéewal mu mën a am lu mu ko jënd dem jënd ko ngir sant ko yàlla kële ñu jox maanaam amu ko far benn sax waaye da koo dem lebi ji ngir wan nit ñi leen am naa ko wala am na ko waaye da caa jënd fukk ak nàngam bis bu set mu sol bu bees ngir wan nit ñi ni am naa ko ku njëkk ki xéewalug suñ boroom a koy dab waaye ka ca des mbugalum suñu boroom a koy dab kon wan nit ñi ni nii laa toll bokk na ci liy tax ba bëti doomu aadama yi mën a dal ci sa kaw ba ca topp bari na ñoo xam ni boo leen seetee ci seeni kër dañu lay won kër gi wan na ne la fii de xam nga batiment bu ñu kuulee ba mu nopp peinture ko ba pare ba nit ki dëkk ci def ci salon nga ñëw toog mu naan la fer yi ma ci def nag moom fer yi importé la birig yi ma ci def moom birig yi birig entreprise sàngam laa ko jëlee wàllu suñu yoon ci loolu da ma bëgg wan ni ma yow danga ngaa alal ni nga ko defee nii la ko nangam ak nangam loolu nag bu ko defee yaa ngi indi yaa ngi gasal sa bopp am kàmb yàlla la jox am ñoo xam ni sa kër googu nga yor ak waajee def baraagam ñoog suñu borom si sa bëti suñu borom kiif kiif amul benn benn différence ndax yéen ñaar ñëpp suñu borom a leen jox li ngeen yor day xool nag nu ngeen koy jëfan jëfandikoo ak nu ngeen koy wane bu ko defee ki nga xam ne day wane ay bagaasam yoru poto gaare ko foo xamoon am na ñoo xam ni bu ñu dëkkee fii géejawaay ba dem ba suñ borom ubbi leen xéewal li ñu njëkk a def mooy bàyyi fi géejawaay ak waa géejawaay dem seeti fu soree sore ñu dëkk fi bu ñu tabaxee seenu kër nag ba mu rafet ñu jënd oto bu rafet bis boo du ñu ñëw ci koñ bi bis boo xam ni ay nit dañuy ñëw bis boo xam ñépp a ngi fi muy dimanche du ñu ñëw ci dimanche ci suba gi dimanche ci ngoon la ñuy ñëw indi oto bi gën a rafet raxas ko ba mu set ñëw taxaw ci koñ bi kenn fenn fu ñu kenn seen xarit bu ñu xamoon dem seeti ko seeti la ngir wan ni la dama laa sopp wala dama laa nangam waaye oto bi mu yor moom la lay wan sax boo ñëwee sax boo duggul ci biir oto bu mu mere la boo duggee ci biir oto bi dina ko taal wëndeelu taal ko def ci climatiseur wan la ni la lii la ma yàlla jox muy ay xéewal te waa ji moom waa ji nga fekk si di ko wan oto yooyu moom mën naa am ñaar fukki dërëm yi mu naane ataaya amul nga koy wan loolu yaa ngi dugal ak iñaan seen diggante seen diggante yéen daal te bët yooyu mu lay xoole nag yàlla mën na caa def tooke joo xam ni mooy lakk am na fi ñoo xam ni dangay yor sa njaboot yàlla defal la ci xéwal kii mokkal na alxuraan kee école ba mu nekk moo fa raw kee nangam a nangam nga ñëw seet ci sa moroomum sa moroomum taalibe sama doom sàngam de moom nangam ak nangam la la am moom de kii diw sàngam de wàcc na bërki dem diw sàngam nangam di wàññi di wàññi di wàññi di wàññi yaa xëy waa ji waa ji wax ak yow xamul ba xam sax ndax moom ci boppam yàlla joxal na ko ak njaboot wala déet wala bu ko joxee moom ci boppam mën naa am ay doomam yow say doom ñu ngi jiitu ñu ngay nekk première ak deuxième moom ay doomam mën naa am ñoo mujj ci classe bi li ngay def loo ci jublu bu dee looy sant yàlla sante ko yàlla mu nekk ci sa biir waaye di ko wane ci kaw dafay indi ab safaan moo tax ngay gis benn xale boo xam ni nit ñëpp koy waajal maanaam danga koy gis ci dundam ñëpp jàpp ni kii moom insha allahu taala luy baax lu ne dina ko dal ndax xam nañ ko muy ku baax di nangam nangam waaye da ngay dem ba mu yàgg rek waa am fanweeri at nga dajeeg moom dafa mel ni lu mu tegoon loxoom rek lépp daan waat lépp màbbu suuf cat a loolu nag léegi léeg waa ji ci boppam du ci dara mën naa am sax ay waajur ma ko def sama doom ji de nangam sama doom ji nangam sama doom ji nangam waajoo xam ni lu mu wax mu mu safaanu jaar ca ginnaaw dégg ko wax ci ay baat la nga doon wut ak la nga doon yaakaar lépp tas loolu nag lu ci bëpp doomu aadama moo koy teg bopp kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax naka lañu war a def bu la yàlla defee joxe xéewal waxuñu ni ki ki yàlla jox xéewal da ngay dem nëbbutu ji déedéet yàlla jox xéewal da koy sant yàlla anamoo ngay dox ba mu yàgg ñu nuyóole la ak diw nga gis ko mbubb mi woyof lool wala mu sol mbubb mu mel ni mi nga sol ngeen bokkandoo ndoog jotaay di waxtaan waxtaan wa dara soppiku ci di waxtaani mbokki taalibe ba ngeen jub ñu ne la diw sàngam mi xam nga ko nga ni déedéet ñu ne la mooy diw sàngam mu wóor la ne diw mii ay yitteem bari na lool ay soxlaam bari na lool alal ji mu yor bari na maanaam yi ko mënoon a tax mu bañ a bokk ak yow ab jataay bari na lool waaye mu bokk yow jataay wàcce boppam bu noppee naka ngay gise waaj bu doon joxoon nga ko téeméer junni nga koy doon ndax naw ndax wàcc gi mu wàcce boppam wax naa leen fii ni leen mag day jàngal na ma ni ma échelle bi jëm ci yàlla yóbbu doomu aadama ci yàlla du échelle buy bu ñuy yéeg jëm ci kaw waaye échelle bu ñuy yéeg jëm ci suuf la échelle bi ñu miin nag mooy échelle moom boo ko tegee da war a yéeg nee na échelle bi yóbbu doomu aadama bi ca kaw ci suuf la jëm lu doomu aadama gën a wàcc boppam ci suuf suñ borom gën laa yéegal ci kaw kon moom boobu mooy bi njëkk ci saafara yi bi topp mooy ñu xam ni li ñuy wax ak njàmbaar dëgg-dëgg ak li ñu war a wane li nit ki war a wane dooleen du mbiri àdduna yi sëñ bi am naa maam yoo xam ni ba mu faatoog léegi junni at la ak nangam xamu fu ñu ko suul saxaabatu rasuli sallallahu alayhi wa ba ñu fi jógee ak léegi amu ci kenn ci ñoom koo xam ni deful ci suuf junni at ak ñetti téeméer te xamaguñu kañ lañuy ñuy génn amul ci ñoom ku ci dund lu mat ñaari téeméeri at kon dund gi ñuy dund ci kaw suuf lu tuutee tuuti la jëlal juróom-ñaar fukki at yi ngay dund ku fi am juróom-ñaar fukki at fu ñu waxe ko faatu nga xalaat ni mën naa caa topp donte suñu borom moom nu ko neex lay defe kon ngir wane rek ni ak nit ki moom bu dundee ba am juróom-ñaar fukki at jàpp na ni gudd na fa juróom-ñaar fukki at yooyu nga am mën nañoo génne fukki at ak juróomi njëkk yi moom yoo xam ni daanaka amaloo kenn njariñ amaloo sa bopp sax njariñ dañ lay defal lépp am na ñoo xam ni sax ci jamono yu léegi am na ñoo xam ne dinañ dem ba am fanweeri at seen bopp njariñ amaluñ kenn njariñ kon bis boo demee ba am juróom-benn fukki at yu bari yi nga mënoon mën a toog waaw juróom boo ci génnee ñaar fukk génnewaat ñaata moo ci des ñeen fukk xëy na ci ngay sa bopp dara boo faatoo bari na fii ñoo xam ni seen bàyyi laa wax ji yi nga xamante ni moo leen jur bi mu fi jógee ak léegi mat na ñeent fukk waxuma say maam ak maamaatu maam te xamagoo kañ lay judd kañ kañ la kañ kon li ngay dund ci kaw àdduna lu suufee suufee la lu tuutee tuuti la du dara li nga fi am ba bari ko wane du dara li am solo dëgg-dëgg mooy foofu xam nga ñi may wax ni la am nañ junni at ak nàngam ci suuf ñooñu barzaq lañ nekk dama guy yowmal xiyaam bu yowmal xiyaam ñëwee nag la ca des la ca toppaat ci ginnaaw kenn xamul kañ lay doon ak lan lay doon kon xëccante bi ak njëkkante bi dëgg-dëgg foofu la war a jëm ñu yeewu dëgg-dëgg foofu la ñuy def seenu njàmbaar kon njàmbaar gi du oto yu rafet yi du kër yu rafet yi du soxna yu rafet yi du am am bu bari bi du compte bancaire yu fees yi déedéet njàmbaar gi dëgg-dëgg mooy lan nga defal sa bopp waajale ko sa bopp ngir suba lii rek mooy njàmbar dañ koy fàtte nag di kenn ku nekk di wan sa moroom fan la sa doole toll fan la sa am am toll fan la sa ki ngay àndal sax boo demee ba tollootu leen am am nga bàyyi ko fa dem seeti keneen yooyu nag mooy waral lii ñuy wax bët ak cat di mën a dal doomu aadama mbokki jurit yi dama am lu ma gis lu ma seetlu ci jamono loo xam ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax man de am naa ngërëmul yàlla wala ñu la diw sàngam di am na ngërëmul yàlla ñu teg ko ci oto ya mu am kër ya mu am basin yi muy sol ak fa mu dëkk loolu bokkut ak li lislaam jàngale yàlla jox na ki mu bëgg jox na ki mu bañ bu dee alal la abdurahman na aw bokkoon na ci ñi ëppoon alal ci lislaam te ñi ci ñi yàlla bëggoon la bokk waaye xaaruuna mi ma leen doon wax bi ñu xamee àdduna ba léegi arxuwaan nettali ku ko ëppale alal te ñi gënoon a saay-saay ci àdduna la bokk kon bu dee li nga xam ne yàlla dina ko jox ñi mu bëgg jox ko ñi ñi ñi mu ñi mu ñiy safaan kon loolu yaakaar naa kenn du ci natt doomu aadama ak baax bu dee nguur ñu ni diw sàngam day yàlla defal na ko tawfiix ndax moo am ndombal tànk sàngam ndongal sàngam sàngam déedéet suleymaan alayhi salaam ci yonent yi la bokkoon yàlla jox na ko nguur dëgg la waaye firaaw gisee sul ku ko ëpp nguur ba fi may wax ak yéen te ñi gënoon a saay-saay ci àdduna la bokk bu dee doole ngay jaay ba ñu wax ni diw sàngam kat yaramu nii la toll moo tax ñu war a xam ni diw sàngam ku am ngërëmul yàlla la ma ne ñaari omar a ngi nii kenn ki di omar ibnul xataab keneen ki di omar tur wu far ba ñu di ko wooy abu jahl te ñoom ñaar ñëpp bu dee ak njàmbaar dañ leen ci xàmmewu dañ leen ci ràññewu kon yooyu du du tëg du tànkukaay du naq du nattukaay du seetukaay nañu dox jëm ci sunu borom te xam ni bis boobu wu di ñëw waajal ko rek mooy li am sax aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa astaghfirullah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قوم الى صلاتكم